mu ngoog daal di koy jaajëfal moom Adjara Bonar di euh, Cissé comme ni ñu ko jënjë woon nag jongante Sénégal euh, Guinée mu nekk euh, match de poule bu mujj gaynde yi nar ko amal ni ki tey bu juróomi waxtu jotee ci ngoon jàngat biñ ci mën a def àndi ci ak Moussa Sow nekk taskatu xibaar xelam màcc ci wàllum tàggat yaram musa ñu ngi lay dalal. maa lay jaajëfal Tambédou di nuyu aussi téléspectateur de 2STV alors tey euh, ñu nekk suñu euh, match bu mujj match de poule euh, naam sax déjà qualifié nañu ci huitième de finale mais ñoo ko déggandoo ci Aliou Cissé kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko mu ne jongante bi naam du yomb waaye équipe am fa mu teg tànkam loolee la bëgg wëyal maanaam ci dynamique bu gañ nan nga jàngatee loolu. bon ñun supporters yi très souvent dañuy bëgg muy am yenn changement yu bëri parce que dañoo bëgg gis ay joueurs yu bëri comme genre Nampalys Mendy wala yeneen ak yeneen. Euh, donc mais euh, ci compétition bu mag lañ nekk te dañoo nekk ci benn dynamique bu baax il va falloir consolider certaines euh, acquis te certaines acquis yooyu noonu bokk na ci joueurs yi nga xamante ne mu ngi leen di teg ci ñaari match yi te gis nañu joueurs yooyu noonu ñu ciy jot a def ci ñaari match yooyu noonu. maintenant euh, c' est certain que dina am yenn quelques changement yi mu yi muy def te yaakaar naa ni changement yooyu dina mën a porté wu ci ay joueurs yi nga xamante ne ñooñu ils font beaucoup d'efforts physiques comme genre benn joueur bi nga xamante ne Pape ñu ràññee ko lool ci ci ci ñaari match yi ñu ñu mhm. football donc kooku yaakaar naa au moins dina ko noppal après peut-être deuxième mi-temps ay fin temps yooyu quinze minutes pour mu nekkaat encore ci bien bi parce que waruñu déconnecté wu complètement ba ñuy naan après dañuy yor ñaari équipe te loolu noonu baaxul il faut que ñëpp mën a engagé wu et donc euh, euh, certainement dina relancer aussi euh, benn joueur bu mel ni Nampalys Mendy wala genre Cheikhou Kouyaté yooyu noonu nga xam ne ils ont besoin d'être la pour ñu mun a mun a mun a nekkaat ci ci affaire bi ba pour au bu ñu continuer ay huitième de finale ba ay quart de finale fekk ñu ngi am ay match ci seen temps ci ci seen seen tànk yi te loolu tamit dina dina baax pour la suite de la compétition. alors jongante mu nekk jongante bu nga xam ne narul yomb diggante Guinée la ak Sénégal bu ñu fàttalikoo Coupe d'Afrique Cameroun. deux mille vingt et un ñu doon ko amal ci atum mille vingt deux euh, bi ñu nekk champion en titre. Guinée dañu nul ak moom. tey ñu mu nekk itam fi ñu toll ku si nekk bëgg a jël mu mel ni jongante boobu nag na jongante bu nga xam ne nan yomb nan la ñu war a mën a duggee euh, ci match bi. donc je pense que yaakaar naa ne Aliou Cissé euh, waxoon na ko ci conférence de presse euh, c'est-à-dire que on a un adversaire benn adversaire bu coriace bu ñu am bu adversaire bu métti bi nga xamante ne dafa qualifié déjà mais. am nañu envie pour jël première place bi te boo xoolee tamit suñu diggante ak ak Guinée euh, y a une rivalité qui est là euh, rivalité boobu tamit da ciy da ciy gën a yokk enjeu bi moo taxoon sànq tamit ma bëggoon wax rek. Euh, ci changement yooyu noonu euh, waruñu déconnecté lépp parce que bu ñu déconnecté lépp day mel ni enjeu amatul te enjeu am na ba léegi. Mhm. enjeu bi lan la enjeu bi mooy que. équipe du Sénégal dafa bëgg def carton plein jël trois matchs yi dóor ba pare jël première place bi nga xamante ne di nga mën a gën a am confiance ba pare lancer benn signal fort bi nga xamante ne sa adversaire yi dinañ la gën a dinañ la gën a ragal. match contre Guinée nag du doon xamante ne dina yomb trop euh, parce que boo xoolee tamit. Euh, Guinée amal nañ seen euh, am nañ renfort bu baax a baax parce que Morgan Guelavogui mhm. euh, ñëwaat na ñëwaat enfort forme te gis nañ ne aussi y'a le capitaine Naby Keita qui est revenu je pense que aussi que kii dina dina football tey mooy Moustapha Guirassy Euh, nga xam ne mu ngi def euh, liggéey bu am solo foofu ca Stuttgart muy championnat Allemagne. Mm-hmm. alors ci ci loolu ñu def euh, benn focus un peu ci attaque suñu attaque bi ndaxte compétition bi muy commencé suñu ay militaires ñoom ñoo ràññeeku woon suñu premier jongante suñu diggante ak ginne mu nekk Pape Gueye ak Lamine Camara. Mm-hmm. suñu deuxième match ñu gis suñu attaque bi. Euh, suñu trio bi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk Sadio abib Habib Diallo Ismaïla Sarr ñoom ñu gis ne ku si nekk dugal benn bi est-ce que tey ci euh, jongante contre Guinée dañu war a continuer ci dynamique boobu. waaw absolument yaakaar naa aussi que Aliou Cissé depuis euh, man maa ngi koy seetlu depuis trois matchs mooy match contre Niger bi daa am benn benn dynamique bu mu indi. y une nouvelle dynamique bi nga xamante ne instant yi nii boo gisee équipe Sénégal buy football sax. tu te dis que euh, waaw football bi dafa rafet. Mhm. te dafa fluide en même temps c' football qui est percutant. Mhm. te loolu tamit soxla woon nañ ko te tey ñu ngi koy gis gis nañ terrain yi mun nañoo dugal gis nañ attaquant yi mun nañoo dugal boo xoolee sax ci premier match bi attaquant yi c' parce que dañoo manqué de réussite. Mhm. mais du question amuñu ay occasion. xam nga euh, équipe mun na bañ am occasion bu boobaa mun nañoo yuuxu di wax ay affaire mais ça Euh, li ñu doon ñaxtu rek mooy que euh, il ne marquait pas assez. ba mhm. par rapport ak occasion yi ñuy am. maanaam nga am ay di occasion dugal ay trois wala quatre. loolu on dit que euh, marqué woo assez. ça veut dire mhm. normalement bu amee dix war nga mën a dugal ay huit wala sept. Mhm. donc voilà. Euh, nouvelle dynamique boobu noonu gis nañ ko ci nouvelle ci par rapport ak animation de jeu bi gis nañ ko par rapport ak rôle bi mu jagleel tey Crépin Diatta gis nañ encore beneen rôle bi mu jagleel benn milieu terrain bi soit Pape Gueye wala des fois ci benn axe bi Pape Abdou Diallo donc sa veut dire que euh, il a construit quelque chose bi nga xamante ne tey euh, Sénégal pour nga booy dajeek moom da ngay da liggéey lu bëri pour mun koo cerner. Mm-hmm. pour mun a xam lan la lay indil. Mm-hmm. donc loolu tamit on avait besoin de ça dafa nekk équipe bu imprévisible équipe bi nga xamante ne voilà dafa imprévisible tey parce que euh, bu fekkente ne Krépin Diatta day dugaat si milieu terrain bu ñu amee bal bi. Mhm. loolu il faut nga sóoraale ko. bu fekkente ne tamit Pape Gueye mooy boobu noonu il nga sóoraal bu fekkente ne Abdou Diallo wala beneen milieu beneen axe bi moo koy def loolu il faut nga sóoraale ko te euh, looloo tax suñu adversaire yi. instant yi dañuy am problème très souvent pour ñu mën a mën a cerner maanaam tey mën nga jàng Lamine Camara euh, Pa Pape Matar Sarr ñu andil la euh, te loolu tax loolu tax mu mu mu gën a am mu gën a am solo te boo xoolee euh, avant bu ñu doon xool équipe nationale du Sénégal dañ naan ne suñu point fort dëggantaan mooy euh, mooy côté gauche bi. Mhm. parce que Saliou Ciss moo doon dédoubler soit Khalil Koulibaly defal ko benn transversal parce que Sadio Mané mu dugaat. Mhm. moom mu mun a dem boo xoolee suñu premier suñu premier penalty suñu première occasion contre Égypte penalty bi presque noonu la. demee dañ koy tëmbalal bal bi après moom mu moom mu dugg. mais léegi boo xoolee suñu côté droite bi mu ngi fonctionner normal parce que. yaa yaa yaa une nouvelle dynamique qui est yaa am na benn benn animation de jeu bi ñu bi ñu indiwaat. peut-être bu ñu amoon beneen euh, temps bu bu gën a bëri ñu mun ñu mun a ñu mun a yaatal mais c'est c'est c'est quelque chose bi nga xamante ne c'est très convaincant gis nañu équipe bi dafa soudé y a un une organisation très solide te joueurs yi boo xoolee même défensivement on est très bon ñoo ngi nii encaissé benn but dugal dugal six mhm. donc ça veut dire que organisation défensive qui est la qui est exceptionnelle te léegi lu ñuy lu ñuy ñaar rek mooy que suñu attaquants yi gën a gën a efficace attaquants yi Habib Diallo Habib jàlloo euh, pour ñenn ñi depuis bi mu ñëwee équipe nationale ba léegi il a du mal à se mu mu ko carrément Habib Diallo bi ñu doon gis ci championnat France ñu gis ko naam euh, dem na ci euh, dëkku naar yi léegi mais keroog ci jongante contre Cameroun ñu bari dañu ni peut-être li ñu doon xaar ci moom dese na ko def am sax ñu ne Habib Diallo role bi ñu ko jox joué na ko la preuve tey gis nañu bii bi nga xam ne dugal na ko. waaye absolument euh, yàgg naa dégg euh, ci critique yooyu noonu par rapport ak moom mais li ma mën a wax rek mooy que tey boo xoolee euh, match surtout match bi mu def contre contre Cameroun je pense que def na benn match bu exceptionnel parce que c'est joueur bi nga xamante ne mun na doon pivot te yaakaar naa loolu tax kii choisir ko. Ah, Aliou Cissé choisir ko parce que dafa profil bi nga xamante ne dafa xaw a wuteeg ak Jackson Jackson joueur de profondeur la. Mhm. joueur bu gaaw la quoi boo xoolee. Euh, kii Habib kii di Habib dafa am benn présence physique bi nga xamante ne mu ngi fii nii euh, bu fekkente ne passe courte yi mun jàll pour équipe bi mun a génn mun nañ tëmbal ci moom directement parce que dafa am benn présence euh, physique ba pare euh, duel aérien yi tamit baax na ci te mu ngi ko mu ngi joué boobu di décrocher di di permuter ak Ismaïla mhm. Sarr te loolu tamit dañ ko soxla yaakaar naa aussi bii bu mu dugal xëy na tamit boobu dina ko dina ko gën a jàppale mu gën a libéré aussi pour pour mu mun a mu mun a encore gën a performant ci sur la suite de la compétition alors est-ce que gis nga ni Sadio Mané ba léegi mu ngi wéy euh, di sol manteau de de leader. oui euh, Sadio ñu ngi xaar li ñuy xaar ci moom moo bëri moo tax même bu defee pour nga mën koo gis du yomb mais leader boobu noonu leadership boobu mu ngi ko yor ba léegi. parce que boo xoolee même yenn action yi mu ngi arrangé joueurs yi mu ngi mu ngi mu ngi aussi mu ngi mu ngi motivé en même temps euh, mu ngi jël ay responsabilité par rapport ballon pied tout. gis nañ ni contre Cameroun il a résisté te mu ngi décroché mu ngi joué rôle bu baax baax parce que nekkatul benn excentré bi ñuy naan taxawal ci ligne de touche bi. bu ñu bu la joxee bal bi nga xotti dugg. Mhm. Sadio jouétuwul loolu léegi rôle boobu kan lañ ko jox. dañ ko jox Ismaïla Jacobs nga xam ne piston la moom dina mën a débrouiller parce que Sadio bu libéré bu libéré excentré boobu noonu dugaat si militaire bi day créer benn xamante ne benn espace ci ginnaawam. Mhm. te loolu tamit moom tamit dina ko dina ko mën a euh, gën a mën a jàppale pour nga pour euh, nga xamante ne pour ñu mun koo cerner ñu mun koo ñu mun koo tëj. du du yomb ci loolu te boobu noonu bu déparé foofu noonu ak vitesse bi ko am ak percussion bi mu am tamit mun na créer danger boo xoolee am na benn occasion sax bi nga xamante ne mooy vidéo bi circuler ci ci net bi mooy. Euh, tikki taka mhm. bu Sénégal bu doon def foofu noonu. Euh, moom bokk na ci mouvement boobu noonu bokk na lu gën a yombal. Mhm. action boobu noonu. Mhm. parce que boo xoolee fin d'action bi. mu ngi jëm ci Ismaila Jacobs parce que Jacobs lañ tàkkale. Mhm. parce que Sadio moo dugaat bi mu dugaatee nag ci lañ ko ci la ko Ismaila Sarr remiser bal bi moom mu dugalaat bal bi Ismaila Sarr mais heureusement malheureusement fekk Habib Diallo comprendre loolu mouvement bi mu dugaat ci fekk si Ismaila Sarr il a fallu Ismaila Sarr defaat beneen mouvement mhm. pour démarrer si moom mais Jacobs demoon na déjà après finalement bal bi moo xawoon a dugg jëm ci défenseur camerounais bi mu tàkk mais ça veut dire que rôle boobu noonu mu ngi koy mu ngi koy joué bu baax baax lenn rek la ñaan Sénégal yi mooy que ñu gën koo jàppale gën koo soutenir par rapport euh, ak critiques yi au moins ñu gën a ñu ñu xaw wàññi tuuti parce que joueur bi nga xamante ne dañ koy soxla euh, à moment. alors est-ce que dernière question mooy par rapport ak Habib euh, Abdou Diallo. Euh, ñu bari instant bi jamono ji euh, yaakaar nañ ni peut-être moo nekk maillon maillon faible ci défense bi ndax loolu ànd nga ci. bon je dirais pas maillon faible mais damay wax ni rek am na yeneen profil yi ma yi ma gënal yi ma préféré yi ma yaakaar ne Abdoulaye Seck peut waaw bi ma yaakaar ne ñooñu bu ñu bu ñu ñëwee dinañ gën a dëgëral équipe bi mooy benn benn Abdoulaye Seck parce que dama jàpp ne rek Koulibaly jour bi nga xamante ne dafa war a dej si axe bi. Mhm. parce que xam nañ ne am na benn présence physique xam nañ ne am na lecture de jeu. Euh, dafa am gabarit dafa puissant. Mhm. te gis nañ ni aussi dafa am benn relance bu baax a baax surtout sur les longs ballons. Mhm. kon mu nekk ci axe bi mun a servir fu ne yaakaar naa mooy gën nga koy décaler ci côté droite bi te gis nañ ab Abdoulaye Seck mu ngi fii. ab Abdoulaye Seck c'est quelqu'un euh, joueur bi nga xamante ne dafa puissant. dafa gaaw aussi. te ballon pied il est il est bon kon boo booleek moom ak ak euh, Koulibaly ak Moustapha Niakhaté loolu dina dina gën a dëgëral défense bi te Abdoulaye Seck aussi dina gën a mën a jàppale Crépin Diatta. Mhm. qui est très athlétique. Mhm. mais peut-être bu ba bu yeneen yeneen attaquant des de des des ailiers yi nga xamante ne ay ay briseurs lañ mooy ñooñu ñuy woowee briseurs nga xam ne dañuy xotti bloc bi di mhm. di di dugg. donc mun na xaw a am yenn yenn. voilà quelques problèmes te loolu noonu bu amee. boo amee benn benn Abdoulaye Seck bu nekk à côté gabarit costaud bu attan yaramam aussi. surtout qui ay une bonne lecture du jeu dina ko mën a mën a jàppale mais surtout par rapport à la relance man ci Kalidou Koulibaly bi je préfère que mu nekk ci axe bi ko au lieu muy décaler ci ci ci benn benn côté bi parce que boo xoolee très souvent mu ngi ci mu ngi ci wetu wetu wetu Krépin Diatta alors mu mel ni euh, peut-être dinañ am occasion ñu toogaat ci yeneen plateau ñu gën a ñu gën a yaatal ndax xam nañu xam-xam xam-xam bi euh, mu ngi fii di am mbégte di la di la dalal pronostic boo ko doon def ci match bi. bon pronostic daw sawaruma ci dool loolu trop mais bon damay miser ci benn victoire Sénégal rek benn 2-0 baax na. ñu jaajëfal ko Moussa Sow fàttali ko moom taskatu xibaar la xelam màcc euh, ci euh, wàllum euh, tàggat yaram ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux di partager ak moom li nga xam ne moo di passion bi itam nañ ko gis lu bari ci fi nga xam ne moo di Facebook moo xam champion